leexlaas di xul huwallaahu ahad fanweeri yoon ak juróom ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi di 5 heures 19 waxtu ci fajar bu taftalee fukki ak juróom-ñeent bu dee waxtu dog yi 19 heures juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee ñaar fukki simili ak benn ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wa sahlan